Ousmane Diagne nekk coordonnateur bu mafia bi nga xam ne dañu daal di duppee seen bopp euh, mafia kàcc-kàcc moom nag démb dañu ko daal di nag euh, woolu woon fu li nga xamante ni nag moom mooy ci brigade de la cybercriminalité euh, moom Ousmane Diagne mi nag ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Massaly moo ko daal di nag porté woon plainte foofee nag ca biir fa li nga xamante ni moom mooy ca nag brigade bi nga xamante ni moo yor lépp lu ñeel nag wàllum nag cybercriminalité criminalité moom Ousmane Diagne demoon wuy ji nag euh, foofee nga xamante ni nag moom mooy euh, ca brigade boobule daanaka euh, tey jii nag ci li ñu daal di nag le ci ay nag xibaar mooy ne rek daan nañ koy bàyyi nag mu génn ginnaaw guddeem gu njëkk yi nga xamante ni nag fanaan na ko foofule tey ñu jëloon mbir mi yóbbu ko ca tribunal gi nga xamante ni nag nee ñu ay influenceur rek ñoo daal di nag feesoon ndax mafia kàcc kàcc daanaka moom mi nga xamante moom mooy nag. nag eh, Ousmane eh, Diagne nag nekk koo xamante ni eh, daan nañ koy nag ràññee lool ci ay position am ci langue politique gi rawatina nag ni muy défendre Ousmane Sonko ak Pastef saay su ne depuis mbirum aji Sarr bi ba tey ji moom Ousmane Diagne nag page bi daanaka nag mu nekk ab influenceur boo xamante ni nag page am bi dafa daal di animé lool bëri lool ay mouvement bëri lool ñu koy follow ci li nga xamante ni moom Facebook bi moom dem sax ba ñu di koy nag mon mu nekk coordonnateur bu page Facebook bi di mafia kàcci kàcci euh, moom euh, Diagne dañu ko daal di placé en garde à vue Niki nak 28 septembre activiste bi ñu convoqué woon ci division spéciale euh, de la cybercriminalité ginnaaw plainte bu Mamadou Lamine massali loolee nak ngir diffusion de fausses nouvelles waaye bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne secrétaire national à la communication bu Pastef les patriotes di l'ajma Hadj Malick ne nak personne Daoudmane euh, Diagne nag euh, daanaka intéressé wul ñi nga xam ne ñoo nekkee nag ci euh, biir nag palais ba waaye nag li mu leen intéressé mooy ñu daal di décapité daal di nag xoñoñol daal di nag amal li nga xamante ni nag moom mooy nag daal di caxat-caxatee révolution démocratique ci Sénégal El Hadj Malick Ndiaye di avertir ne mafia kàcc-kàcc ab plateforme boo xamante ne nag liberté d'expression moo tax a jóg ci wàllum démocratie mooy ne rek dañoo am doole lool ah, mooy ne rek Ousmane Diagne mi nga xamante ne nag démb képp lañu ko daal di nag jàpp waaye nag ah, dañu daal di jaarale sax créer li nga xamante ni moom mooy benn ah, hashtag boo xam ne dañ ko daal di duppee Free Ousmane Diagne moom Ousmane Diagne mi nga xamante ni nag daanaka nag tey ak démb lépp loolu lañ doon partagé nag ci réseaux sociaux yi ngir ñu daal di koy bàyyi mu ñibbi këram ndax nee ñu nag wàllum liberté d'expression la ñu bëgg a daal di nag nasaxal moo tax Mamadou Lamine Massaly euh, nag dal di instruire avocat ngir mu retiré plainte bi bu ñu sukkandikoo ci euh, maam Diarra Fam mi nga xamante ne député euh, diaspora la bokk ca parti démocratique sénégalais nekk itam défendre défenseur bu ki nga xamante ni nag moom mooy Karim Wade moom Euh, daal di xamle ne nag euh, moom moo daal di nag sàkku ci ki nga xam ne muy Mamadou Lamine Massa li nga xam ne jàmm lañu ñu naam sax euh, bokkuñu ay position ci wàllu politique waaye jàmm la ñu séq moo tax nag mu daal di sàkku ci moom ngir mu daal di nag instruire avocat am à que mu daal di nag amal li nga xamante ni moom mooy nag retrait plainte am bile bu ñu sukkandikoo ci député bi di Mame Diarra Fam ci benn annonce boo xamante ni ci page Facebook muy informé que ne Mouhamed Massali daal di nay retiré xelam ginnaaw bu mu ko daal di nag dégloo déglu ay kàddoom ca la nag daal di nag retiré li nga xam ne mooy plainte am moom Mam jaara Fam, ne nag ki nga xam ne mooy masali daf ko déggal ndax am na lu ñu seeq diggante yaay ak doom la moo tax ba mu ko ko daal di waxee rek dafa daal di nag génn euh, ca euh, saasa kon nag euh, moom mi di wax ne nag ñaanalul kenn lu nag boppam la ñaanal Ousmane sama doom la loolee nag la député bi di nag maam jaara Fam daal di nag xamle moom nag wax itam ñu daal di nag bàyyi képp ko waxati ñu lay jéem a tëj di la xoññal ak di la xoqatal ndax ndax loolee nag dafay daal dina sëxal li nga xam ne moom mooy suñu démocratie waaye jàpp leen ne euh, ki nga xam ne mooy coordonnateur bu mafia kàcci kàcci Ousmane Diagne daal nañ koy bàyyi nag mu ñibbi euh, ca këram sànq nii lañu ko daal di nag euh, libéré mu ñibbi këram ñu fàttali itam ni ne boobulee mafia ñu duppee mafia kàcci kàcci nag daanaka ab mafia la boo xamante ni dafa daal di nag bees tàq ci li nga xamante ni moom mooy langue politique bi ko nar a noonu nag annoncé euh, ni ki nag euh, keroog a jam ñaajo ginnaaw bi nga xamante ni dafa doon daal di nag inauguré li nga xamante ni moom mooy DRSent bi euh, di centre des données bi nga xamante ni ca jam ñaajo la ñu ko implanté moom président Macky Sall ci dal daal di nag sàkk woon ci ne nañu daal di nag bàyyi di làqatu ci seen ginnaaw clavier yi di kàcc kàcc loolee nag moo inspiré nag jeune influenceurs yi nga xam ne ay activiste lañu waaye nag génn ñu taali pëna wala boog ñuy defee marche waaye seen activisme dañ koo daal di yemale seen i téléphone ak seeni machine di euh, publier ci réseaux sociaux yi am lool mbooloo goo xam ne dañ leen daal di topp ak code de popularité moo tax nag euh, ci noonu la ñu fa jaare ñoom sa créé li nga xam ne moom mooy seen mafia duppee ko euh, mafia kàcc-kàcc moom mi nga xamante ni mooy man Diagne nag nekk ka nga xam ne mooy coordonné seen i activités yëpp